xaddiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na maa ngi giñ ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk du ngeen dugg àjjana lu dul ne da ngeen a nekk ay jullit du ngeen nekk ay jullit lu dul ne da ngeen a soppante dee leen siiwal ab nuyoo kon di ngeen soppante maa ngi leen di wattandikuloo ak mbañeel ndax mooy aji wate ji waxuma nag watu karaw waaye diine lay wat demal ko ba dara du fa des xaddis bi buxaari moo ko nettali qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wallazi nafsi bi yadihi laa tadxulu ljannata xatta tuslimu wala tuslimu xatta taxaabu wa afsu salaama taxaabu wa iyaakum walbuxda fa innaha hiya alxaaliqa laa aqulu lakum taxliqu saar walakin taxliqu diin rawaahu lbuxaari